asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi jotaat nañ ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla fi yàgg lool te ànd ko wér wàcc si ci kër goo xam ne génn kër la ci kër yi sëriñ Touba yi jàmbaar joo xam ne ku woon ak sëriñ Touba la ci am ci moom ak cër muy buntu kër sëriñ Sahid Mbacke loolu nag ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa mu wàcc ci jëwriñu kër gi di sëriñ Babacar Mbakke ñu toog ak jëwriñam di sëriñ Mansour di rakkam ànd ak njaboot gi yépp fas yéene waajal bis boobu nga xam ne ci lañ koy fàttaliku tam doon bis bu rëy ñu koy amale fii ci Mbakke Bari ci Mbakke Bawol ginnaaw raay loolu nag moo tax ñu ngi toog ak bokk yi fas yéene yëkkati ay kàddu fàttali bokki jullit yi ak bokki taalibe yi fàttali waa Mbakke waa Paaleen waa Daaru Salaam waa Touba ak dëkk yu ko wër bisub jàmbaari lislaam yow ji di sëriñ Sahid Mbacke moo tax danañ fab kàddu gi jox ko sëriñ Mor Mbacke miy wax ci turu sëriñ Mansour bu ñu noppee ñu jox sëriñ Salihu Mbacke moo ñuy leeral lan moo waral bis bi su noppee ñu jox sëriñ Abdoulatif Mbacke moom miy woote su noppee ñu jox sëriñ Abdoulahad Seck mu waxal ni programme bi bis bi nag mi nga war a doon fukki fan ak juróom-ñaar bi alxames ci rakki gàmmu dëppoo ak ñaari fan ci weeru novembre di amee fii ci Mbacke ginnaaw raay kon ñu jox kàddu gi sëriñ moo mi wax ci turu sëñ Mansour. asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbokki jullit yi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Mansour di fi teewal sëriñ Babacar Mbacke ñu xam ne sëriñ Saïd Mbacke ci mu jot ndigal ci bis bi nga xam ne moom lañ daa def mu jëm ci sant sëriñ Touba. Mm-hmm. ci fii ci Mbacke Bari ci waa kër Serigne Sahid Mbacke di ko def di ko sant la Serigne Sahid Mbacke ci ngërëm la amoon kër Serigne Touba mu doon liggéey bu am solo ñu ci woo bokk yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ñuy bokki bokk yi bokk ci maaram ñëpp am na nag loo xam du wolof naan ku ku wal mburu tudd dëkk mm-hmm. am na ñoo xam danañ leen ci tudd muy waa kër Tafsir Mbàkke Ndoumbé ñu bokk koog ñoom ñu daal ci teew ak Ahmadou Xari Ahmadou Xari Diop ñoom it waa këram dañ ci daa teew ñu bokk koog ñoom comme nag ñu leen ci woo ñoom ñëpp di leen wax ne bis bi jub si na sëriñ Babacar Mbàkke nee na nañ ko daa defee lañ koy defee fii ci Mbàkke Bari ñu ci woo waa Touba gépp mbokk yi nekk ak fii ci Mbacke ba ca Baxdaad Taïf seen maam Cheikh ñëpp boo boo xam ne mbokkam fa rek ak ab taalibe ak dëkkandoo ak xarit na ko sëñ bi daa waxee daa wootee ñim jur ak ñim ko jural mm-hmm. kon loolu yaatu la fii ba bitim réew ñii am na si ñuy ànd ñu bis bi ñu leen koy fàttali fukki fan la juróom-ñaar ci weer wi benn fan ci tey fukki fan ak juróom-ñaar la ñu ngi ci fàttali bokk yëpp ci sàkku seen dawaay lu mel ni jàngkat alxuraan yi nga xam ne dañ ko daan seq ñoom seen sëtoo ci sëriñ Sahin Mbàkke ñu leen ko fàttali ci benn fan nañ ko daan tàmbali ba àgg ca bis ba kon nag bis ba googu sëriñ Babacar Mbàkke nee na ci kàddu sëriñ Mansour ñu ngi koy fàttali ñëpp jëwriñ yëpp taalibe yëpp xarit yëpp ak am di jaam yëpp fukki fan ak juróom-ñaar ci rakaatu gàmm fii ci Mbàkke incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu mbokki taalibe yëpp di dugg suñu waay bi Cheikh Mamadou Mansour di jëwal ni Sëriñ Babacar Mbàkke ñuy xalifa njabootu kër Sëriñ Say Mbàkke bi yëpp euh, leen fàttali bis bu màgg bis tedd boo xam ne yàgg na ko amal ñu di fàttali ren. parce que yéene amal ni ko suñu mbokk taal yi jiit léegi waxee fukki fan a juróom-ñaar ci yor waxtu gàmm yi ñu nekk mel ni bis la bu am solo boo xam ne yiw yi ci ne ak xéewal yi moom la sëriñ bi yéene mu di ko woote ndax boo xam ne jàmbaar yi lislaam di taali Cheikh Amadou Bamba di liggéeyal sëriñam boobu gërëm ko mu fas yéene ànd ak bokki taal bi yëpp yiw yi ci làq nekk ci làq liggéeyal ko am ngërëmu yàlla mu di ko woote sababu bis bi nag mooy sëriñ Sayid Mbàkke dafa bokk ci bokki sëriñ bi waaye bokk ci ñi nga xam ne ñoo jaay seen bokk jëndee mm-hmm. ak taalibe ànd bi ba bi gërëm leen yeewi leen bis bii nga xam ne moo dëpp woon ak loolu yi nag ci la ko sëriñ Tuubaa xamale lépp loo jubloo te yàlla gërëm loolu ko mm-hmm. waaye damaatu woon loolu fa bi gërëm loolu la ko wax mm-hmm. loolu màgg loolu nag la sëriñ bi yéene ñëpp tax mu di ko woote mu dëppoo fukki fan ak juróom-ñaar fukki fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ak gàmm ñu nekk di ko amale fii ci Mbàkke ginnaaw raay ci quartier bi ñuy wax baar yi ñu sàkk teewaay bokk yëpp di ñaan sama borom defal ci toofeex ak ngërëmul yàlla sama borom ñaan képp ku ci teew yàlla nekk sa fajo aajo biir mbir yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nag kër gi la ba magi Serigne Sang yi ñuy wax Serigne Mbacke ñaaw nekkoon na këram danoon ko jëwriñ ci niñ ko déggee waaye di ci wooy itam bu baax Serigne Ndam Abdourahmane Mbacke xalifab Cheikh Ibrahima Mbacke borom baar yi mooy itam suñu mbokk jatara yi nga xam ne li ñu boole ci ak bokk lu rëy la te yàgg lool wax dëgg yàlla ñi sos ay bis di ñu ko wax ni di ci dem ñu di ñu sos bis di leen ko yàgg kon ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp ku jiital ga ba ci ki a ndaw waaye ñu ngi ci woo itam bu baax barke Sëriñ Omar Diop yi nga xam ne ñooy suñu dëkkaale te it ñu moo xam ne ci jabootug Cheikh Omar kenn ci ñoom moo doon taxawee waxtaan wi ci bis bi nga xam ne moom lañu def kon ñu ngi ciy mboolem njabootu Cheikh Omar Diop gi yëpp waaye ñu ngi ciy woo itam mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi yëpp ci jiital xalifa bi sëriñ am yi Modou Mbenda di ci feddaliwaat bu baax kóllëre gi doxoon ci diggante sëriñ Sang yi ak maam Cheikh Ibrahima ba sabab mu yëkkati kenn ci ak njabootam jox ko aw turam kon ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp tàmbale ci kilifa ga ba ci mboolem kuy dégg suñu kàddu waaye ñu ngi ciy woo itam bu baax mboolem njabootu Cheikh Issa Diène ci kilifteefu Serigne Abdou Latif moom it kóllëreem gi nga xam ne moo doxoon ci digganteem ak Serigne Jean yi ba Serigne Jean yi yëkkati am caatam tuddee ko ko kon ñu ngi ci woo mbooleem njabootu Cheikh Insa Diène yëpp waaye ak mbooleem bànnoo àll yëpp mbooleem ñi ñu bokkal askanu Mbàkke fukki bunti kër yi maam maharam yi ak ñaar yëpp ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di jooyal woote bi nag ci Mbàkke gi nga xam ne fi la njabootu Serigne Jean yi dëkk kilifteefu soxna Ramatoulaye Mbacke ñaaw ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lay àndal ci ay jotaay ñu ci ànd di ci liggéey Sëriñ Tuubaa di ci woo bu baax Serigne Abibou Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal mi jiite Touba ca kanam di kóllëre wu soxna si wax dëgg yàlla ñu koy def mu teewoon ci muy lu sagu ci ñun te rafet lool ñu ngi ko ci woo ak mbooleem membre Touba ca kanam yi yépp ñu ngi ci woo itam mbooleem koo xam ne ku nekk ci dëkk bi la te lu baax ñor la ñu ngi lay woo ci ngërëmal yàlla lii sëñ sang yi jële woon ci Sëñ Tuubaa ñu ngi la ciy woo ñu ñëw ànd ci ak mboolem daayira yi suñ ci tuddee Taysiirul Asiir bu soxna Aminta Mbàkkeem Sëñ Tuubaa tudd ci inna allaha maana tudd ci soppee Sëñ Fall yi nga xam ne ñoo fi nekk ak mboolem daayira yi nekk ci tund Mbàkke yëpp ñu ngi leen ciy woo di ci woo góor ak jigéen mag ak ndaw gis bi amuñu lu dul moom te lu ñu itteel la lu ñu ñor la lool kon ñu ngi ci woo ñëpp képp koo xam ne dégg nga suñu kàddu ne la biir ne ci yow lañu ñu tàmbalee bi muy góor ak jigéen di mag ak ndaw asalaamu minallaahi aleykum wa rahmatullaahi taala wax na auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamu ñëw leen ci yàlla suñu ñëw ci kilifa yi fi jaar saw suñuy jëm ci programme bis bi nga xam ne moom lañu jëmmal dëppook fukki fan ak juróom-ñaar le 2 novembre di alxamis kon gaaw bis bi ñu ko baaxoo daan doxalee rek noonu ñu ko fekkee di doxalee incha allahu taala suñu xëyee daan woo mboolem jàngatu kaamil yi mboolem daara yi ñu yi nga xam ne ñoo ngi leen wàcc kaamil njëkk bis bi comme ni ko sëñ waxee ñu tàmbali ci biir kër gi jëm midi lépp di alxuraan ngir ñaanal ci suñu jàmbaar ji Sëriñ Sane la ñu digee ci loolu dañ yaatal mboolem ñi nga xam ne ñoo jànkatu xasida yi ñoom it daan yaatal ba waxtu tisbaar bi ñu taxaw bi benn bu dee ba loolu romb incha allahu taala dañ def ak diir boo xam ne dañuy waajal gan ñi ñu mën a dellu ci baas bi boobaa nag muy waxtu yi bi ñu amal li nga xam ne moo di mu waxtaan bi maanaam cérémonie yi nga xam ne mooy mbokk yi ak dëkkandoo yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bëggoon ci bis bi dalal leen ci baas bi a kilifa gi waxtaan ak ñoom loolu des na ko def ci waxtu woowu ba jëm timis gannaaw loolu nag incha allahu taala ñi nga xam ne ñooy sëddi dañ daje waxtu bi nga xam mooy gannaaw géej gi ñu war ko ànd ak suñu gàllankoor ñu fàttali leen ko kenn ci suñu maam ju baax ci nga xam ne moom la ñuy jëmmal di Serigne Saxay Mbacke waxtaan nañu ci ci diggam ak Serigne Touba kon loolu daal mooy nga xam ne mooy programme bu màggal yi. dañ ci woonoon mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal di jàngal waxtaan yi jàngal xaside yi ak mboolem dëkkandoo yi comme ñi nga xam ne noonu la ko kilifa yu baax yi waxee sàkku nañ ci teewaay bi yëpp muy alxamis la 2 novembre incha allahu taala wa rahmatullahi wa barakatuh ma at la bamba sañ ci baari bi isni xaalixil bara yal baari fekkoon taalu beya gor ca weela mu romb gor ba góor gu yàlla yeela ba mu amee juróomi weer fa baari di dugg xalwatun di ñaan lil baari saytaane dem ruxale ko nasaraan ni ne leen jihaar lay fexe fii soodaani tubaab ba yónnee fa wisit lu kër ga di seet balak doom gis fa teereeg warga ca mooma at la yàlla seen xol ya daf ca ragal Seex Bamba soppi